xocc na mais dinañ jëlu si ci benn kaa boo xam ne euh, passé woon nañ ko bi bi ñu jàll muy diggante Boury li ak ak Balla Gaye 2 hmm? dinañ ci waxaat tuuti rek soog ci soo ko mën a tëj jotaay bi doon te am na yeneen cas yoo xam ne sax waroon ñëw mais waxtu bee xocc te itam ah ñi ci régie bi sonn nañu ñun ñi ci plateau bi tam yàgg nañu fi diire nañu fi lépp rek ngir lu neex ñiy seetaan la pour intoxer pour yàq pour jaxase mais rien maanaam amul dara lu fa xew moment bii ñuy waxee Soumboulou mu ngi toog biir kër bàcc li kër gi nga xam ne fa la ko Balla Gaye teg ca Mariste mm. foofu la Soumboulou nekk ci magam ci wetam euh, loolu itam lu lu mat a bàyyi xel la donc mooy li ñu waxoon léegi rek ci ndaw si di am Ami Faye bindal ko loo xam ne amul intox ko maanaam yàqal nit ki léegi dafa bari trop moo tax euh, lu baree bari itam war nañ ci tey mmh. di ci gën a am vigilance laata ñu koy relater wala sax ñu koy bind parce que bind dafa doy waar information xibaar dafa doy waar donc pour vous dire ni information boobu amul du dëgg Balla Gaye ba tey mu ngi ak Boury ci la ñu nekkoon amuñu benn problème bu dox seen diggante dañu dañ leen ah. ñaanal seen diggante gën a wéy en tout cas bu demee ba ba ba internet tane ko hmm. ngeen ne fa di xëccoo di pëccoxoo di wax waxu dof loolu leneen la xolo réew mi fu mu toll nii nii nii nii nii nii nii xam nga kal la soxla boroom xel yi pour ñu régler ko mais soxlaatul dox léegi léegi looy wax ci nga problème mu buri keroog dangaa wax ma ne la buri yaayu bàlla la. mais ñi ko génne nag. waa xaaral xaaral xaaral ñooñu tam bëgg naa man gëwuma ko xam nga lu tax. waa dama bëgg dama bëgg nga dalaale ci kaw ñooñu. waaw maanaam page la boo xam ne. peut-être ñoom dañuy bind ci nit ki loo xam ne pour niwir ko rek la. ñooñu tam il faut que ñuy wax ci ñoom. waaw mais xam nga booy seet ñooñu. Mhm. xanaa am loolu mbind bu njëkk ba journaliste. Mhm. daana juum sax bind lu amul. Mhm. bu ko mësaan bind. da danga koy gëm ba pare ñu doog a weddi. soo koo weddi lu tax waaw. mais mën a fen mënta weesu. Mhm. ngay tas diggante boo xam ne liir yi sax dañuy xool xam ni loolu mënul bàyyi. dañoo jur ay mbañi rus. waaw keroog da wax nga ko yow. keroog wax naa la ne la fi buri placé bàll mënu ko buddi. te dafa créé daara ay. nit ba pare seen doom yi ñu jël yóbbu daara seen doom yi ni ñu toll. bàll mënta am ñu mag ñooñu. ba pare sëy di jeex. yaa ngi dégg waaw munu xoola mënut am ñu mag ñooñu. Mhm. ba pare gis nga Balla ak ñoom buri mhm. léegi nekkatul ay sëy kese. Mhm. xola dañoo jaxasoo. waaw askan bu jaxasoo la. non boo demee ba sëy ba ba ba kër nga takk ci jabar di régler ay sëy kooku mënoo tas. Balla day régler ay sëy. seen grand frère la. léegi xoola relation bi nekkatul sëy passé na foofu parce que tey su fekkonte ne Balla dafa taxawee yenn taxawaay yi bu bu bu sumbulu riiree du dem ci Balla bu magam amul foofu jàmm xoola li tax keroog ma toog fii ne la weddi ko dama informé wu xam ni sumbulu mi ngi fa te bu fa jàmm amul du fa daw dem toog du fa dem toog waaw bu sif neexul si pili dana neex waxal xoola boo dofee sax nga seetlu yanu maanaa moo tax keroog ma lànk mbind moomu fen loo sa bopp la am na loo xam ne booy bind bul jëm ci ñoom parce que day teel a leer balaa balaa yëf yee dem xoola buri li mu boot foofu yëpp rek su ko su leen waroon a sànni xoola ñooñoo ko naa naj tëj ko ci néeg d'accord li mu encadré foofu xoola munu fa jóge kooku jeex na dafa am sëy yoo xam ne da nga koy xool rek xam ne fii jeex na ah, ah oui ku nekk ñëw na dem bàyyi ko fa. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. mais bu doon buddeeku bi ñooñu di ñëw kon lay dem mais sëy boo gis ab day am ay wax yu sew mhm. mais sëy boo gis sëfu mbaam la ay nit ay topp ca kaw lu wadd ñu for teg ca kaw mais bu dee lu wadd ñu dem réeral ko dangay waaru loolu la quoi en tout cas daal yéeme na ngoone lan ngay wax ci loolu. gaa yi bind loo xam ne moom c'est c'est c'est. mooy ñi nga xam ne dañuy bind di def information yoo xam ne ne amul. loolu moom dama naan toujours noonu mooy nekk ci ginnaaw rek dem di ci journaliste yi di leen bugsee di leen fay xaalis pour ñuy ñëw di wax ci nit ki loo xam ne du yoon. Mhm. ndax li jumboori wax rek buri yaay la dafa dépassé fu muy divorcé. buri de war na mën a dépassé foo xam ne dafay divorcé ak Balla Gaye. Ah, ndax parce que da ngay xool njaboot gi ñu am ak buri fi mu taxawee ubbi ay daara di def ay yu baax ay gestes yu baax. Balla Gaye tamit la même chose nit ñi dépassé nañ ko noonu nag ñooy def yooyu. Mm-hmm. dañuy fekk koo xam ne ne buri ku may estimé la mi ngi këram toog muuru muuruwaayam doo ko dégg sax ci réseaux sociaux wala muy génn di wax événement ba événement nga koy génn. Mm-hmm. xam nga ku dem tey ba dugg ci sëy ba nga ne yow bàyyi nga gërëfaajal jël sa bopp di muuru kooku yow fa nga ne yaa ngi fa bëgg a sëy ba dee fa. te nag yaay nga fa yaay la ci biir kër gi ku ñëw danga ko fay fekk ku dem danga nga ko fay bàyyi. Hmm. kon nag mu nekk ay faux information yoo xam ne wax nañ ci jàll nañ ci ñu ngi ciy jégaluwaat bu baax a baax. dina ci jégalu bu baax rajab ga hmm. gis nam fa taxawee laa xam ne kooku bu fa jógee te bu bu rajab amee baala fu mu koy rajab mi ngi noon nag mi ngi noonu. <laughs> te ñu ngi waat ci rajab ak li ñu wax ci rajab ñu ngi noonu rek ay fausse information rek ñu tamit. ay waxkat lañu rek lu ñuy jot rek macha allah du ñun ñoo ko wax dañuy jottali rek kon tamit ñëpp ñi nga xam ne dañuy bindati ci nit. wala di joxe ay information dañuy bàyyi ba xam lu leen leer carrément ñu doog a wax ci nit. moo gën a rafet. mu toll nii buri mi buri baala di bëre baala bi muy bëree di daan buree ngi woon di daan de. bi mu nekkee roi des arènes dafa nekkoon roi <laughs> mu dem ba perte roi des arènes toog foofu. <laughs> dem bay retraité naan day jóge foofu. <laughs> alaaji jumboor yi yow tamit nag ngoone ngoone looy jeexal de xam naa am na yeneen cas yu ñu waroon kii mais danañ ko indi lundi ay cas yu danse yoo xam ne mu ngi ci biir ah yu ñu téye mais waxtu bi waxtu bi xam nga xam nga ñi ci ñi ci régie ci suba ba léegi ñu ngi toog di liggéey dem jabar jabar waaw xam nga xam nga Ousmane mi ci régie bi ci suba ba léegi ndeysaan mu ngi toog ah, feeling matinal point de presse yi amoon fi yëpp se c'est lié wax sa xalaat bi ah waaw yàgg na fi trop te loolu man mii Euh, ku ma ko def la woon dama naan c'est dur ah, métti man saa ma defee loolu su ma demee mm-hmm. kër ga oh, nelaw rek nga fa nekk aja tàggool mu mm-hmm. gaaw ñu daal di génn <laughs> waaw baax na waaw comme noonu rek ñu def ko tàggoo bu dul tàggoo rek di bëggee ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci internet bi di ñu bàyyi xel ci saa su nekk lépp na dama ko ñëpp di leen bëggee ci saa su nekk di ñëw ci sama xarit sama doomu ndey muy madame Fall ñetteel xaritu jëkkëram macha allah fee mm. ca boulangerie nekk boulangerie géejawaay sama xarit la sama doomu ndey la bëgg ma moog jëkkëram tubaarikàlla macha allah di ma bëggee ci saa su nekk di ma jottale nag lu bari démb dafa defanteeg man lu baax kon nag sama waajaa ngi noonu ngi noonu bëgg ma lool nag sopp lool kon nag mi ngi noonu gaynde ngiraan gi kon nag mi ngi noonu sama waajaa ngi noonu tubaarikàlla macha allah waaye nag di ñëw nag ci sama waa ji tubaarikàlla macha allah le king voyant ki nga xam ne ne tubaarikàlla macha allah li muy gis ci réew mi bu ko xale bu ko gis wala mag bu ko gis sa bët sa bët toj ndax li ngay gis jéggi na océan Atlantique tooyal Amérique tubaarikàlla macha allah eh? muy Mara Niass mu sëriñ mu sëriñ Saaliw tubaarikàlla macha allah sama waa ji yow ñu duppee ah Basiiru Fàllilu kon nag maa ngi lay bégee di la ñaanal tubaarikàlla macha allah nii nga mën a mel baax gën loo wax ci réew mi dëgg la sama waa ji baax nga ci man gën nga ci man gaaw nga ci man tubaarikàlla macha allah koo xam wala koo bokkal tubaarikàlla macha allah defa nga ak moom teraanga teraanga yi nag tubaarikàlla du mm-hmm. jeex mm-hmm. sama waa ji gën nga baax nga bu doon heure boo joxee kuñ ko nëgë ni dese wooy baax na ci ñëpp yaa gën ci ñëpp yaa gën ci réew mi yaa gën ci ñëpp tubaarikàlla waaye noonu lii nga mën a mel baaxkat bi taalibe Serigne Saliou en tout cas nuyu naa la ziar naa la bégee naa la loolu xoola may ñu nag waaye a <laughs> nga xaw a iñaan am kër cœur noir bu kuy wax nit lu baax arrêté la waay Ah, kenn du yow ci mim réew. nga Mara Niass moom bu ko dee kii moom. lu ci waay man bu may wax ci moom tubaarikaala damay pivoté. yow xam nga sax Mara Niass tamit. non jàmbaar la. non tabe moom tabe. Ah. Ah. wax dëgg yàlla. xoola tabe tabe rek. Mm-hmm. daf ko dem. kenn du moom. yaa ngi dégg. yaa ngi dégg. Mm-hmm. jàmbaar tabe la. ku du seetaan nit. Mm-hmm. yaa ngi dégg. te boo ko tiisee sa soxla munul sax gàntu mm-hmm. yaa ngi dégg